Ousmane Sonko inculpé et placé sous contrôle judiciaire d'après le doyen des juges Samba Sall du premier cabinet moo ñu ko daal di xamal rek ndiki tey jii ci altine ji ginnaaw rek ba mu dégloo leader bi di Ousmane Sonko daf ko daal di placé rek sous contrôle judiciaire maanaam daal du am trois génn fenn te heure buñ ko soxlaa rek ngir mu wuyu si dafay daal di ñëw rek daal di leen di wuyu si te tous les quinze jours dafay ñëw rek daal di signé ngir xamle ne moom rek mi ngi ci dëkk bile Ousmane Sonko dañu ko daal di rek yokkal te dossier ba ginnaaw viol ba dañ caa tegoon li di trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation no autorisé waaye nag boobulee dossier toppeetuñ ko ko liñ koy toppee rek moo di viol waaye nag ba tey ci maître Clédor li mi ñu ko xamal nee na dossier d'appel à l'insurrection bañ ca yokkaatoon rek juge bi waxu ca lenn rek mais pour le moment nañ jàpp rek ne viol daal la ñu koy daal di toppee moom leader di Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina ñibbi rek euh, këram buñ sukkandikoo rek ci Samba Sall mi di doyen des juges bi nga xamante ni rek moo ko den déglu niki tey ji rek ci altine ji